asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi seen football tv nuyu naa leen bu baax si leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo mbokk internet yi tey dañuy ñëw wax si Dion Lopy lu ñuy wax si Pape Matar Sarr di wax si yeneen joueur bëri na mais souvent du ñu dégg Dion Lopy moo tax Aliou Cissé du convoqué boy bi et fii ci réew mi à chaque fois dañuy wax ne Diouldé bi talent la bokk na si joueurs yi xamante ne yaakaar nañ leen ëllëg parce que boo limee Pape Matar Sarr lim Moussa Ndiaye Diouldé foog nga lim ko si petite catégorie franchement da ko toj ba tax na ay équipe bi mag ñoo ko doon laaj après see jël décision euh, Oslo Foot xam nga ko ñoom ñoo déggoo ak Reims mu dem signé foofu noonu ñu bëri na gisoon ne lii bu baax la da fekk mu dem Reims championnat France Ligue 1 française di nga am visibilité ci benn équipe bu xamante ne mën na jox temps de jeu mais boobu ba léegi moo ngi Reims moo ngi titulaire saison bi rek boo jëlee footballagul ne 19 match mais Aliou Cissé musque ko convoqué quoi le problème man leen bu fekkee am ben bémol wala bok ben affaire bu xamné man naka naa ci kaw Dion Lopy moy côté esthétique par rapport ak niveau bu meilleur euh par exemple moom seen jour box box ah, Pogba moy moy fan sam moom day bi yéeg di kii mais du côté de Reims équipe bi mu nek je pense que Oscar Garcia bu ñu xamee euh, philosophe ay stratégie de jeu bok na ci football offensif football tiki taka football champagne les les jouer maintenant dafa changer complètement man xam moon Oscar Garcia bi maanaam entraîneur bu bu Reims moo tax may wax day défendre physiquement mu ngi nii di taxaw di jouer en compte du qualité yu dëgg yu yu doo gis dañ ko xaw a tënk si ay consigne si ay ndigal defal lii defal lii récupérer la mu joxe alors que boo bëggee am benn junne bu exceptionnel foog mu nekk box box comme ni mu doon joué ni côté de U20 euh, yi ak ak ak kii xamante ne mooy Dabo Dabo dama ko déglu mu ne kii li ma neex mooy day yëgal bal bi ragalul day jël ay risque xam nga wóol na boppam am na benn leader bi muy dégagé xam nga dafa am charisme mais loolu euh, Youssouf Dabe doon wax ci kii Dion euh, Lup ñun sénégalais ñu ñu xool ko bu baax a baax xam nañ ne mu ngi moom mais du côté de Reims c'est pas encore exceptionnel parce que bu ñu waxee ne Pape Matar Sarr bu mu ñëwee euh, bu mu ñëwee Metz dafa ñëw rek toj ko am lumière mu ne Bamba Dieng aussi tamit Olympique de ñëw taf taf mu toj ko bu ñu la toj ko ne koo xam ne mu toj def ay lu doy doy maanaam mu def mu bëlëfe ñu def match bu doy waar li ñu mel moo koy andi équipe nationale du Sénégal donc ñaar Pape Matar fu mu ñëwee Bamba normalement John Lopy war na mën a ñëw et John Lopy ñi fi nekk dañ ko man wala moom moo amul niveau bi pour man question boo ma ko posé naa ñi fi nekk mënuñu ko dèjà rek boo jëloon tamit nga jël ñaari Lopy yi par exemple xam naa ne moom laa gën a yëpp maanaam mm, Joseph Lopy nekk socio man je préfère mille fois benn John Lopy non seulement Joseph Lopy lu mu li mu mën a def John Lopy man nag parce que John Lopy man bu fekkee am na lu lu lu xamante ne def nag mu jaaxal ma mooy défendre franchement ma saa naa contre Monaco euh, lui deux maanaam stade bu Monaco extraordinaire dans la récupération euh, daw dem ba jeex solidarité saa euh, naa ko contre Olympique de Marseille Vélodrome la même chose dafa mën a défendre quoi donc ku xamante ne mën na défendre ba pare mu am ay qualités offensives. ça veut dire mën na lii Johnny Lopy man mën na lii euh, Joseph Lopy mën autant pour moi ba pare am leneen loo xamante ne Joseph Lopy mënu ko tey jii suñu milieu terrain boo xoolee dafa bëri ay profil yu nduroo boo leen gisee tout le temps bu may wax sax si Soumaré profil Dion Lopy moo tax may wax Soumaré parce que boo ne Modou Ndiaye ne Chérif ñoom ñëpp dañoo xaw a yor ay rôle yu offen boo xool si offensif mooy Pape Matar Sarr Pape Gueye tene na tuuti ak Gana Gueye mais les autres que ça soit Loum Ndiaye naam gis naa tene na naam Aliou Cissé moo ko may sansam carrément pour mu exploiter carrément li man laa dañoo faar jox ne passe décisive mais Aliou Cissé ko essayé mais man pour man bon poser question bi est ce qu'il a le niveau de l'équipe nationale du Sénégal question boobu nga tek dama nan waaw parce que ñoo jamalok ak yeneen équipe ay adversaire yu xamantene fi ci Afrique la bu ñu ku si amoon jël bi ne tek maintenant jëmletu dafa progresser comme ni ma ko waxe ci tâche défensif dans la récupération yu léegi da ci ay offensivement war nañ ne am na ay qualité donc euh, comme que Aliou Cissé ne fii ak coupe du monde bi day élargir groupe bi day woo ñu bëri xool leen je pense que John pour na si mën a bokk parce que boo nekkee Reims di titulaire tout le temps tout le temps jusque entraîneur moo koy tënk si si wàllum récupération joxe bal bi parce que dañuy xeex bañ a wàcce Ligue 2 française franchement saison bu baax a baax lay def ay qualité am duñ leen duñ leen ko wax je pense que bu ñu may nañ fi Moussa Ndiaye mës na ñëw équipe nationale du Sénégal euh, Pamata mu ngi fii euh, Bamba Dieng moo ngi fii Formose Mendy sax xaw na ñam tuuti xam nga même si euh, dafa bëri won ay blessé motax mu ñëw donc ben ben ben benn Dion franchement mais je préfère Dion bi ni que Joseph même si Joseph la dernière fois convoqué wuñu ko mais entre Mourou Loum Mustapha na Nam défensif yu bëri ñu am non yépp fokk ñu wañ ci kenn am beneen profil ndax profil Dione euh, lepi, amoo ko équipe du Sénégal box box yéeg noonu mën a xaaj mën a dóor parce que même Pape Gueye yoru loolu Pape Gueye il est plus relais il est plus dans la gestion mais euh, ko xamante ne à haute intensité mën na ko andi di ko répété c' est bien Dione lepi quoi xam nga donc euh, moo tax man bu may gis Dione Lopy lu naan souvent kii Angleterre mooy championnat mais moom nee lépp lu muy def rek ki muy roy c' est Paul Pogba mbokk yi lii mu vidéo pour yéen ñi xamante ne souvent yéen mooy wax Mohamed Dione Lopy def ci vidéo def ci vidéo euh, xëy na dinaa beneen vidéo si John lepi? mais tey rek juste mu doon tontu benn question est-ce qu'il a le niveau de l'équipe nationale du Sénégal la réponse est oui maa ngi leen di jaajëfal di wax ba beneen su Senfootball TV.